Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez le programme de Salam Vision, une télévision au cœur du développement. Voici quelques flashs d'informations présentées par Cheikh Oussaro. Plusieurs jeunes de la banlieue ont été libérés par le procureur de Pékin. Ces enfants sont accusés euh, d'ivrer à des actes de vandalisme et de barbarie euh, dans certains euh, magasins. Ces gosses, finalement, ont rejoint leur domiciliaire dans la ville de Pékin. Restant dans l'actualité nationale, le mouvement pour la défense de la démocratie organise ce samedi euh, une marche pacifique à la place de la nation pour exiger la libération de tous les prisonniers politiques, y compris Guy Marissagna, euh, Kairosen et Hassan euh, Diouf. la synthèse FC, Cherio, a déclaré hier devant la presse qu'il était temps de lancer un appel à tous ces jeunes de garder la paix et la sérénité. Il a également fustigé le comportement de certaines stations d'essence qui ont été allumées par ces jeunes euh, bandits. L'actualité nationale euh, parle également des chefs religieux qui continuent de lancer un appel à tous ces jeunes talibés euh, de garder la paix et la stabilité, euh, d'éviter euh, certaines imperfections au niveau euh, du pays. Euh, pour rappel, des émissaires ont été déployés un peu partout pour sensibiliser les Sénégalais à se positionner et à respecter les engagements euh, vis-à-vis des populations. Quant au président Macky il a lancé un appel de paix et de stabilité à tous ses enfants. Au chez en Côte d'Ivoire, le président Alassane Draman Ouattara a finalement nommé un premier, ministre provisoire. Il s'agit bien du secrétaire général la présidence qui remplace Ahmed Euh, Bakayoko, qui est malade depuis quelques mois, euh, hospitalisé à Paris. Enfin, nous allons rendre au Niger. Le président Ama Amadou a déposé un recours à la Constitution pour décrier cette deuxième tour d'élection présidentielle qui a été remportée par le président Mohamed Bazoum. Tout de suite, la version Wolof.

te du sumay kaddu ay kaddu Cheikh Dior ne nag station yooyu ay doomu sénégalais rek ñoo fay liggéey daan seen doole mi ngi woo ndaw yi ñoo daan ñu bañ di yàq te loo xam ni alal njëw mi rek euh, li jëm si mbirum euh, xibaar ki xam nag moom mooy euh, kilifa diine yi ñoom ñi ngi woo taalibe ànd ak ndaw yi ñu ànd ak yar ak tegin ànd ak dal ñu mën a delloo si seen xel Sénégal réewum jàmm la te ñu bàyyi yàqu-yàqu yi li gën a am solo ñu toog waxtaan diisoo. ak waajur yi génn Sénégal si ay jafe-jafe bitim réew la ñuy doxantu fële ca Côte d'Ivoire euh, mun nañu wax nag euh, élection euh, président élection législative doon xëccoo majorité présidentielle moo jël ndam li xam mooy président Alassane Dramane Ouattara moom nag tàbb na benn premier ministre bu bees moo doon secrétaire général bu présidence de la République moom moom moo nag moom remplacé Ahmed Bakayoko ginnaaw bu mu feebaree ñu fële ca Paris di ko faj foofu. Euh, fa lañ koy tëjee fële ci Niger xam nga mooy euh, Ama Amadou nekkoon fii président bu assemblée nationale moom nag dafa euh, dugal benn recours fële ca conseil constitutionnel bu Niger moom nag nee na àndul tey si deuxième tour élection présidentielle yooyu mi ngi woon nag nigériens yi ñu ànd ak dal bañ a indi ay jafe-jafe li la woon si ay xibaar si kàllaama Kocc Barma mbokk yi ñu ngi leen di gërëm leen sant ba beneen yoon incha allah